خلقنا الإنسان في أحسن تقويم jotaay bi ngeen koy waaja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ñu ngi sant yàlla bi ñu digal ñun ñëpp nañ sant yàlla alhamdulilah. yàlla bu xéwalee jaamam. yàlla bu xéwalee jaamam. xéwal bu toll nii suñ xéwal ji. moom war nañ cee sant yàlla. bu ñu santee yàlla ba noppi it kat war nañoo santaat yàlla. ndax yàlla ci mbaaxam. nañu may mayam yi toftale ko. nañu may mayam yi toftale ko. nga xam ngeen ni dafa ne tënk bi moo ko fàggu. nga xam cër bi ko yàlla mayee xoon. tànn ñim tànn. tànn leen may yéen leen may. tànn leen it may yéen leen may. kon nag loolu moo tax ñu ne ñun war nañoo sant yàlla bu baax alhamdulilah. ñu ngi leen ndokkeel ci siyaare bii ñu ñëw ngir yàlla dongo. yëngatu la boo xam ne. yëngatu la boo xam ne bii. léegi yàlla amul ci kii. léegi ci benn kër. kon yëngatu bi lépp yàlla ko moom. kon kay yëngatu bi lépp yàlla dongo ko moom. loolu ci may yi gën a foor la bokk. loolu it moo tax sëriñ bi ne ci a foor la na lool yëngatu yi bari na lool ci àddina bii. daje yi bari na lool. xam ngeen ne daje yi it tey ba tey bari na lool. waaye taxul ne daje bu nekk yëngatu ba mel ni seen daje bii yéen. yàlla ci boppam moo ñu ko tànnal it kon. mu ne loolu moo tax mu ne lépp lu duxut lii du lii. kon nag ñu ngi wax alhamdulilah te di ko waxee salaat. siyaare nga yàlla. siyaare nga yàlla nag. dara du fayam yàlla rek. dara du fayam lu mooy yàlla dong. jëf yi ay xaaj la. xam ngeen ne jëf yi ay xaaj la ñu. jëf yoo xam ne borom a ngi koy jëf. jëf yoo xam ne borom baa ngi koy jëf. dañ koy jëf lu muy namu ci lu muy àddinaam. te ba mu koy jëf namu ci lenn lu muy àddinaam dong. ak koo xam ne muy jëf. ak koo xam ne kii mi ngi jëf moo nit. waaye jëfam yi ñu ngi koy yëngu topp ndigal yàlla rek. waaye jëfam ya kat. maa ngi koy jëf ngir topp ndigal yàlla yi. ak koo xam ne mooy jëf ay jëfam. ak koo xam ne kii moom it mi ngi jëfi jëfam. ngir yàlla rek. ngir yàlla dong nag. ngir bëgg yàlla rek. ngir bëgg yàlla rek. màggal yàlla rek. ngir màggal yàlla dong it. ngir sàkku la ñuy jëf. kooku suñ jëf yii nag. yàlla rek a tax. mu ne yàlla ngeen di ko jëf ci seen mbay. bàyyi. baaxoo ngeen kanamam. jëf yi dolleeku. jëf yi jëf yi màgg. di màgg. ba jii mu gën kon kañ xam ne nag ci nekkoon yàlla doon na fa. loo xam ne dañ koy defee yàlla nag. loo xam ne dañ koy def ngir yàlla nag. loolu dafay sax. loola moom day sax dàkk. day jokkaloo it. day jokkaloo it. loo xam ne dañ koy jëf te yàlla taxul. loo xam ne dañ koy jëf te fekk yàlla taxut nag. lu mu mën a rëy du sax. lu nit ma rëy rëy du sax dana am pour yàlla. kon nag ñun bi ñu yàlla tànnalee lii loolu moo tax ñu ne war nañoo topp yàlla. siyaare mbokk ci yàlla. siyaare sa mbokk ci yàlla. waxuñ ni muy mel. waxuñ ni muy mel sax. waxuñ ni muy mel. mbokk rek laa wax. mbokk dong lañ wax kat. kenn du jóg di siyaare ñu yàlla nga càtt mukk. kenn du jóg di siyaare ñu ngi yàlla dong nag. càtt. ay mbokk ak nu mbokk ma ngay saara ji mu mën a mel. yow. ku mag nga. yow. ku mag nga kon ci ziyaara. ku mag nga kon ci ziyaara. ci ziyaara. ci sa ziyaara. ndax yàlla rek a tax. ndax yàlla doo nga tax. bàyyi bi fi nekkee. bi fi bàyyi nekkee. ngeen dajee daje yi. ngeen dajee daje yu mel nii. bu ngeen dajee daje yu mel nii. dana kontaan lool. bàyyi ko ko rek tëkk. dana kontaan lool. lu koy kontaan lool. lu koy kontaan lool. mooy yëngatu mooy yëngatu yàlla rek. yëngatu bii yéen ñëpp ngeen buur yëngatu ko te yàlla toll na tax. loolu moom la ko bëgg ñoom ñëpp. te moom day loolu la mos di bëgg ci mboolem nga ñam. loolu ko bëgg itam. loolu itam mooy mbégam moo ko mën a bégloo. amul leneen amul leneen nag. kon nag ñu ngi sant yàlla ci loolu ndax ba tey ñoo ngi ci. xam na ne jëf bii woon bàyyi gërëm na ko. buñ koy gis gërëm na ko buñ koy gis moom gis na ko moom. buñ koy gis gërëm na ko buñ ko gisatu gis moom xam na ne moom mi koy gis te gërëm na. xam nga kon nag amul benn karaama bu ëpp jiite. ndax ñun loolu dëng lañ bëgg. moom la ñuy déggee. moom la ñuy déggee it. moom moom mooy suñu yaakaar it nag. te buñ ci saxee dañ daje ñu ngi am te buñ ci saxee day ku ci daje bàyyi da ko tekk ngërëm moom. loolu nag. mat a wattu leen nag doy ma day moo mat a wattu nit ñi koy dénk fii. dem ba mu yàgg nga wàññeeku. di dem di dem ba mu nga wàññeeku. nga wàññeeku dëkk bi. loolu si ñàkk bi moo koy ñëw. loolu day ñett nit ñi dong moo koy te képp ku mu dal. waaw ku bés bu nekk ci diggante yi. mooy gën jëndam. mooy gën jëndam ful. bu ko dara sikkee rek moom la. bu ko dara sikkee rek te moom dong la. waaye du ci naan la. du ci naan la. waaye duut nag ci mu àndoon. man nag moom dafa mat ba nekk na ko yàlla moom. ndax ki nga àndoon dafa mat ci boppam ba noppi nga soog a ànd ak moom. dafa soppal ci boppam ba noppi nga fa ànd ak moom. dafa soppal ci boppam ba noppi it nga fa ànd ak moom. sëriñ mooy ko soppal ci boppam. sëriñ mooy kan mooy ko soppal ci boppam. soppal ci boppam nag. soppal ci boppam nag. ku ànd ak moom. ku ànd ak moom. te tayalu la. boo tayalu. taxawuloo. taxawoo itam. fokk da nga mat. fokk da nga mat. kon nag nañ góorgóorlu ba tey yëf yaa ca kanam. kii la ñu doon liggéeyal. di siyaare yi moom. di siyaare xëy ngir moom. di jokk si ngir moom. di jokk si ngir moom. ba tey day ñun moom dëgg la ñuy liggéeyal. moom la ñuy jokk si kat. moom la ñuy jokk si kat. lépp luñ ba gis ci waa jooju dëng lañ koy wut. ñu yaakaar ni ñu yaakaar tamit wóor na ni ñun la ci moom lañ koy amee. loolu nag kon nañ ci xamee ne ñun suñu jéego dara yàquwul ci. suñuy waxtu yàquwul. suñuy waxtu nit ba tey yàquwul. ñoo ngi àndoo yàlla dina ko yàlla. ñoo ngi àndoo yàlla. ngir ne yàlla moomu la. ngir ne yàlla moomu la. ngir rëy li loo jëm ci moom. ngir rëy rëy loo jëm ci yàlla. kon day sant yàlla tàmm ñu moo ñu war alhamdulilah. mbooloo mi daal moomam yàlla. mbooloo mii daal gàtt gàtt bi mbooloo yàlla rek la. ñu ngi ci yàlla rek lañ wéy. ñu wuy ci xoote bi yàlla tàmm lañ wuy. li ci yëngat li ngay di jëm ci yàlla rek. li ci yëngat li ñëpp seen yëngat bi lépp ci yàlla dong la jëm. kon jotaay yu mel nii moom la tey jotaay yu jiw. kon tey jotaay yu mel ni bii moom dong mooy jotaay yu jiw. te jotaay yu jiw moom la comme moom la tooga. nekk. dana far junne junne jotaay yu ñaaw. dana far junne junne jotaay yu ñaaw. loolu ku ko am. loolu nag comme ku ko am. waroo ko sàggane. waroo ko sàggane dëgg dëgg. boo xam ne bu xam kan war ko wut. boo xamuloon fan la nekk sax. nga war ko wuti ba xam fan nekk. rawatina ba mu la wóoree nag. rawatina nag bi mu la wóoree fi nekk la xam ko bu gëpp. ñun de ñu def ñoom ñëpp ñu ngi nekk yàlla jëndi di nga dénk ñun ñëpp ñu wattu yàlla ci ndigalam ak mboolem i terrain. mu ne loolu. nañ ci sax dàq daari man. yàlla defewul ndigal yi dara. yàlla xam ngeen ne defewul ndigal yi dara. ñëpp lañ topp bañ ko may mooy mooy yàlla defewul dara. su ko ko mooy. du ko jëriñ dara du ko yokk dara. ñun ñëpp mënoon mooy dàq rek tamit du ko law dara. ñun ñëpp mënoon mooy dàq rek tamit du ko wàññi dara du ko lor dara. su ko lekk topp gi ak topp ndigal yi topp ndigal yi. kon nag topp ndigal yi. ak bàyyi tere yi. ak bàyyi tere yi. ñu ne ñu koy jëriñoo. ñun ñi ko def dong kat ñoo koy jëriñoo. dong nga ko mën a xamee. ku ku la jiitu it loolu la jiitu. képp ku la jiitu it sax si loolu day tëral a jiitoo. kon nag nañ waxtu yàlla ci digalam yi waxtu ko it ci tere yi. bari di ko tudd ci yooyu waxtu lool. bari di ko tudd ci mboolem seen waxtu yi. yéen yàlla Ibrahim. mu ne yéen yàlla Ibrahim. xaritoo Ibrahim. ba ko yàlla waxee ne dafa xaritoo Ibrahim. malaaka yi dañuy wax dañ ko wax ne ko. malaaka yi dañoo wax yàlla ne ko. ay eh, loolu daal mën a nekk. loolu kat moo mën da nekk. ndax Ibrahima dafa bëri soxla. ndax Ibrahima ñii dafa bëgg ay doom dafa bëri soxla lool. ñu koy soxlaal ñu xala xalalam jabaram bakkanam lépp. ndax xalalam bakkanam jabaram. yooyu yëpp dañ koy soxlaal. yàlla wax malaaka yi ne leen. man sama xarit. man day sama man da ngay bëgg. man dong lay bëgg kat. naa koy gën a dund man. naa koy gën a ne lépp lu dul man. yéen it day natt lay seet. su leen nekkee lii ma wax nag yéen malaaka yi natt leen seet. ak jibril ñëw. jibril ñëw ci Ibrahima waaw ndax fu mu mën a jaay Jibril ne ko waaw ku ma mën a jaay ci lii. am na yoo xam ne boo bëggee. Ibrahima ne Jibril soo bëggee. boo tuddee yàlla rek. boo tuddee yàlla benn yoon rek. waaw yàlla nag bu ko defee taxaar yi ñu jëlal benn bi yàgg ñu. bu ñu defee cat yëpp ñetti xaaj. xaj yi. xaj yi. yàlla gàtt yi gàtt yi. gàtt yi. ñi nga xam ne moom la xaj yi sàmm. gàtt yi nga xam ne moom la xaj yi doon sàmm. ak xaj yi. ak mboolem xam ne tasawul bi. léeg-léeg ci xaaj. mu ne ko buñ ko séddalee def ko ñetti xaaj. kon jëlal yaa moom benn bi. kon jëlal benn bi boo tuddee yàlla benn yoon rek. mu tudd yàlla benn yoon ñu ko tawal. mu tudd yàlla benn yoon. Ibrahima ne ko jëlal. mu tudd yàlla mu ne ko tawal. mu dellu tudd yàlla benn yoon mu ne ko jëlal ñaareelu xaaj bi. jël ci yàlla ñëw di jëlee. mu tuddaat yàlla ñetteelu yoon bi mu ne ko jëlal li ci def. mu tudd yàlla ñeenteelu yoon. mu tudd yàlla ñeenteelu yoon. Ibrahima ne ko jox naa la sama bopp ak def ci man lu la neex. yaa ma moom lew na yab doom. li nga xam ne moom jaay na boppam. li nga xam ne moom nag jaay na boppam. yàlla. ngir tudd yàlla. jaay na alal ngir tudd yàlla. jaay na alal ngir tudd yàlla. nee na lépp ngir tudd yàlla la ko jël jaayee. ne moom lépp tudd yàlla dong la ko jaayee. kon ñu xam ne kooku moom nekk xarit yàlla. kon nag ca lañ xamee ne kooku moom mën naa nekk xarit yàlla. Jibril fekkoo feeñ rek. Jibril fekkoo feeñ nag. wan ko ne ko moom malaaka la rek. ne ko man malaaka laa yëpp a awu ci kaw la. parce que dañu leen dafa wax ne. gàtt yooyu yëpp ak xaj yi ñu ko toppale moom njëriñu ci. fekk ba muy dem dafa xam ne gàtt yëpp ak xaj yi gannaaw jox na ko ko mu jënd na ci nañ ko topp. loolu la ko jàllale ko ne ko moom. booba la jibril soxla jàllal bi ku wan ko nag ni ko xaw ma ci soxla ndax man malaaka laa. waaw jox na naa ko jàll bi ma ko jënd. ma ne ko man de gannaaw joxoon naa ko nga jàll dugg ma ko jëm. yàlla digal ko ne ko def ko ay waqaf. xelal la jëloon yëpp joxe na ko yàlla. nga xam ne moom xalalam ak jëmmam lépp joxe na ko ngir yàlla. mu tax aarif bi nag balaa nga ànd ak kenn. looloo tax aarif bi lépp léegi balaa ànd ak kenn. fokk da ngay rëcc sa coop. fokk da ngay rëcc sa coop ci sa bopp. dina jeex tànk. génn ci sa bopp génn ci la nga moom. génn ci sa bopp génn ci lépp loo moom. ñu soxla nangu nag sa dëkku. ak seen liggéey. ak seen liggéey bi tey. waaye lii ngeen def xel na ci loolu. waaye lii ngeen def tey de sëñ Aliou mu ne xeet la ci loolu. yàlla nangu. yàlla na ko yàlla nangu yàlla ji. yàlla na ko yàlla gis. yàlla na ko yàlla gis. yàlla na ko yàlla gërëm. yàlla na ko yàlla gërëm yàlla ji. ñu nekk ci jamono ji. ñu nekk ci jamono ji tiis naam. waaye yàlla yëpp di dëkkoon ci réew mi. waaye yàlla yàlla yëkkati dëkkoon ci réew mi yaa rabbi. ak xiif ak rafle. ak xiif ak rafle. ak bépp balaa boo xam ne moom laa tudd. ak bépp balaa boo xam ne yàlla doon na ko mën a yëkkati. kàddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp jàngoon nañ. kàddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp day jàngoon nañ. yal na yàlla yëram kàddu yonent bi. yal na yàlla yëram kàddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yal na yàlla yëram kàddu yàlla yàlla yërëm teef yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. barke alquran ñu waxal ci moom. barke alquran nag ñu waxal ci moom. barke saaba yonent bi. barke mboolem saaba yonent bi. barke ci Ahmad Tijaan radiyallahu anhu. barke mboolem saabaam ya. barke ci Ahmad Ibrahim. mboolee mi saabaan yaa rabbi yal na nañu yàlla may ngërëmam lu mat dara yaa rabbi yàlla sàmm ci zaahir ci baatin yal nañu yàlla sàmm ci zaahir ak baatin yaa rabbi yal nañu yàlla wattu ci gëm yàlla yaa rabbi suñu yëngatu ak dolal suñu dal lépp yàlla ñeexal yàlla yaa rabbi yàlla bu ci bakkan am benn cër yaa rabbi yàlla bu mu ko am ci sahir yàlla bu mu ko amit ci baatin réew mi yàlla ko yàlla xaat yaa rabbi li ci nekk ci damm damm yàlla ko yàlla jam yaa rabbi ba mu fàtte ko li nekk ci xol yi ci damma damma yi. yal na ko yàlla jënd bañ fàtte ko yaa rabbi. bu loolu jamono rek. bu loolu jamono bi. li ñuy jàmbat yëpp dina li ñuy jàmbat lépp dana dem ñu bokk noppi. ñu ngi tàllal suñu loxo di ñaan yàlla. ñu ngi tàllal nag suñu loxo jëmale ko yàlla di ñaan yàlla. mu may ñu suñ takku jéem ci sa yëre ci bàtt yaa rabbi. ci suñ bopp. ak njaboot ji. njaboot ak baay gi. njaboot ak baay gi. ak way toppam fu mu mën a nekk. ak fuñ mën a nekk. way toppam fu mu mën a nekk. ak way toppam yëpp fuñ mën a nekk ci doge alam yi. yal na leen yàlla yëkkati bañ ci lépp lu ñoom mu tëral leen boppam ba tar bi leen jëmal ñu. boole leen ci ñu toppante gi moom yaa rabbi. di siyaarante ngir moom. di joxante ngir moom. di jokkalante ay yëpp ngir moom. ñu xam nga kàndoor bu rafet ndik moom yaa rabbi kàndoor gii yàlla bu ci war a yàqu yàlla bu ci dara yàqu yaa rabbi bañ dajeeg yàlla bañ dajeeg yàlla moom may ñu ngërëmam lu màgg la allahumma salli ala sayyidina muhammad ndokkeel it. di ndokkeel suñu bopp. di ndokkeel suñu bopp. kaddu yii ñu fi déggee. kaddu yii ñu fi déggee. dañ xam lépp fan jëlee. dañ xam kaddu yooyu léppam fam bare ko. ak li mu doon. ak li kaddu yi doon. te lépp di dégle. te lépp kat di bégal. lépp di ñaan. lépp di ñaan. lépp di ndigal. lépp di ndigal. li ciy digle nag. li ciy ay dégle. li ciy dégle. xol yëpp wóolu na ko. xol yëpp day wóolu nañ ko. li ciy ñaan itam. li ciy ñaan itam. xol yëpp wóolu nañ ko. li ciy digle. li ciy digle it. yal nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne. yal nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne. bu ñu déggee ndigal. bu ñu déggee ndigal. topp te jëriñoo ko. ko. yal nañu yàlla boole ci ñoom. yal nañu yàlla boole ci ñoom yaa sëriñ Aliou wax. lii sëriñ Aliou wax. ci kàndoo gi. ci kàndoo gi. ak rafet. ak rafet ak kànd gi. ak yàgg. ak yàgg ak kànd gi. loolu ku mel ni moom rek moo placé pour wax ko. loolu ku mel ni moom dëgg moo placé pour waxati ko. kon nag. kon. li ma leen waxoon ci gàmmu gi. lim ñu waxoon fii de ci gàmmu gi. ne leen nit ki bu leen di digal loo xam. ne leen nit ki day waxtu bu leen di digal loo xam. koo jëriñoo. yàlla nañu ci yàlla jëriñ yaa rabbi. ci saahir ak ci baatin. ci saahir ak baatin. lii ngeen def nag. lii ngeen loo xam ne. lëf la loo xam ne lii. gëm gu mat sëkk. gëm gu mat sëkk de. ak mbëggeel gu mat gu mat sëkk. moo mën a tax mu am ci waxtu yii. moo mën a tax mu am ci wax wii ngeen ko defee. bu du doon loolu. bu du doon loolu. gàllankoor yi bëri na lool. gàllankoor yi leen mënoon a dikk. bëri na lool. rawatina waxu ba sax a fekk dara. waxu sax teew gi xam dara. waaye teew gi rek. waaye teew gi dong. mënoon naa jafe. mënoon naa jafe ndax ni jamono bi mel. waaye buñ delloo nag ci yàlla. waaye ci yàlla. ñi nga xam ne moom lañ ñu ci lañ ñu yar. xam ne moom lañ ñu xamal dara ñu yar kay. ñuy nangu ci bàyyi muy wax liy dëgg-dëgg jëm yàlla mënta lu mooy ci ñett. dañ nangu ci bàyyi mu wax ne jëm yàlla mënta wér mukk lu mooy ci yëpp ci yëpp. rafet ak wakkiilu ci yàlla. rafetal ak wakkiilu ci yàlla. ci loo xam ne xamagoo ko. xam ne lii xamagut. ko. xamagoo ko. ak rafetal gërëm. ak rafetal jëm. ngërmaande ci yàlla. ngërmaande ci yàlla. ci li nga xam ne jox na la ko ba ci li nga xam ne jox na la ko ba noppi. ak rafetal muñ. ak rafetal ak muñ. ci li nga xam ne faat na la. ci li nga xam ne faat na la ba noppi. yëf yooyu. yëpp yëf yooyu la. gëm yàlla man tamit. gëm yàlla du mën a mat mukk. lu mooy jullit bi daf ko lamboo. rafetal wakkiirlu ci yàlla ci loo xam ne amoo ko. rafetal wakkiirlu ci yàlla ci loo xam ne amoo ko. ak rafetal ngërëm ci yàlla ci lim la may ba noppi. ak rafetal ngërëmaande ci yàlla ci lim la may ba noppi. ak rafetal muñ ci li nga xam ne faat na la. ak rafetal muñ ci li nga xam ne faat na la. yéen rafetal ngeen seen ngërëmaande ci li nga xam ne yàlla jox na leen. mu ne rafetal seen ngërëmaande ci li nga xam ne yàlla jox nañu ko. nawet bi nawet bi. ñu génnee. ñu génnee. Euh, jullit rek moo ci mën a gërëm. jullit doon nga tey moo ci mën a gërëm. te bala ngaa mën a nekk jullit bu wér. mën a nekk jullit bu wér lu yàlla àtte rek mu neex. lu yàlla àtte rek. loola moom daf lay daal di kon gërëm ngeen. kon tey. yéen ñii day gërëm ngeen. rafetal ngeen seen rafetal ngeen seen ak wakkiirlu ci yàlla. rafetal ngeen ba seen ak wakkiirlu ci yàlla. ci li ngeen amut. ci li ngeen amut. rafetal ngeen seen ak muñ. rafetal ngeen ba tey seen ak muñ tëb. ci li ngeen ñàkk. ci li ngeen ñàkk. melo yooyu bon daje na ci yéen. melo yooyu nag sëriñ bi ne daje na ci ñun. ba tey loolu dafay dëggal ne. ba tey kat mu ne loolu day dëggal ne. bàyyi dafa wax toog gis ne. bàyyi dafa toog jëmi gis ne. bëggoon naa bëggoon naa. am tegtal bu wér. am bu wér. ci sama bopp samay topp. ci sama bopp ak boole suma topp. ne man ak ñoom. ne man suñu ñoom. dañuy texe ci àddina ak ëllëg ci àllaaxira. dañuy texe ci àddina te mënu ma ci am benn tegtal bu ma doy. te mu ne kat mënu cee am benn tegtal bu ko doy. lu may ci alxuraan. lu mooy daal ci la ko mën a jëlee moo ko koo mu ne ma ubbi téere yàlla bi. bàyyi mu ne mu ubbi la téere yàlla bi. jàng ci bopp bi. jàng ci bopp bi. mu gis na yàlla wax ne. mu gis ca yàlla wax ne. téere bii. téere bii. amul benn sikk ne fa yàlla la jógee. amul benn sikk ne fa yàlla la bare ko. ne njub la nag ñeexal ñi ragal yàlla. mu ne njub la nag ñeexal ñi ragal yàlla. te ñi ragal yàlla. te ñi ragal yàlla kat. ñoom la yàlla wax ci ñoom ne ëllëg ci àllaaxira duñ tiit bu nit ñuy tiit duñu ragal bu nit ñuy ragal. ñooñu la yàlla wax ne ëllëg ci àllaaxira duñ tiit ba nit ñuy tiit duñu ragal ba nit ñooy ragal. waaye nag ñooñu ñooy ñan. mu tekki ne waaye ñooñu mooy ñi gëm yàlla gëm gu wér. mooy nag gëm yàlla gëm gu gëm ak fàttu. gëm ak fàttu. mu wax ñu it ne fàttu ñaar la. mu dem ñu wax ne fàttu day. ñaar la. gi nga fàttu ak gi nga xam ne yow yaa ko fàttu. fàttu gi nga xam ne. gi nga fàttu ak gi nga xam ne yow yaa ko fàttu. waaye mu ngi teew. waaye dàq ko fàttu boobu moom tënku mu ngi teew. gi nga fàttu mooy lu demee ni Kaolack ci yow wala Ndakaaru ci yow kooku moom yow fàttu nga ko. gi nga fàttu mooy. lu demee ni Kaolack wala Ndakaaru ci yow. yow fàttu nga ko xam nga ne ndax nekkoo ko. waaye gi nga xam ne yow yaa ko fàttu waaye mu ngi teew gën laa jege sa mbuum xol gi mooy yàlla. gi nga xam ne nag moom dafa fàttu. yow yaa ko fàttu mu gën laa teew. mën laa jege sa buumi xol gën laa jege sa buum ak xol gi. kooku moom yàlla la. te kooku mu ngi teew. te kooku moom. mu ngi teew naka jëkk. ne fuñ mën a nekk itam moom ñu na nekk. ne fuñ mën a nekk mu tëj ne moom ñu na nekk. gannaaw bu ñu yàlla dimbalee ci wastatu baay ba ñu mën a sellal gëm googu gannaaw bu ñu yàlla dimbalee ci wastatu baay ba gëm googu ñun ñu mën koo dëggal nga xam ne dafa woote ci alxuraan wax ne yéen ñi gëm yàlla gëm leen nga xam ne dafa wax ci alxuraan ne yéen gëm yàlla leen ñu xam ne gëm ak ñaareel googu bon beneen gëm nga xam ne gëm ak ñaareel googu kon geneen gëm la boo xam ne jëm koo xam ne. boo ca àggee. soo ca àggee yow. beneen gëm nekkatu ca wàlla. gëm nekkatu ca wàlla te it moom dëng mooy gëm fàq. ne mu wóor ko ne. bàyyi na nag mu dal di koy wóor ne. saxaabaam yi. moom day saxaabaam yi. am nañ ngëm googu. xam nañ ngëm googu yàlla wax kat. ndax wax na ko ci sant yàlla. ndax wax na ko ci sant yàlla. ne ki gën a tuuti gis na ma yàlla. ne ki gën a tuuti gis waxandoo yi. ñu dañ nañ ci bokkaale yàlla. ñooñu ne dañ nañ ba set yëpp ci bokkaale yàlla ci mbooleem te yàlla wax na ci alquran. te yàlla kat wax nañu ci alquran ne. wa maa yuminu aktaruhum billahi illa wa hum mushrikun ñi gën a bëri ci ñoom. mu ne ñi gën a bëri ci ñoom. duñ gëm yàlla mukk lu dul ñu ngay bokkaale. duñ gëm yàlla mukk kat lu mën ngeen koy bokkaale. mu ne kon mu wóolu ne. bàyyi ne kon nag mu wóolu moom ne. am topp. am toppam day dëgg. ñu ci moom. ñi dëggu ci moom gën gëm nañ yàlla gëm gu wér. ñooñu tamit bàyyi na ne gëm nañ yàlla gëm gu wér. wa la ci teg taxawal julli yi juróom. ak ñiy taxawal julli la ca teg. julli yi juróom. julli yi juróom. ay woy toppam. woy foo mën a dem ci addina bi. foo mën a dem ci addina da leen di fekk ñu bokk ci ñuy dundal jàkka yi. da nga leen di ci kuréel yi dundal jàkka yi. ci julli yu juróom. ci julli yu juróom. ni mu ci joxee moom ci boppam misaal. ni ci bàyyi joxee moom ci boppam. misaal mu ñëpp gis. te xam koy tey. am kattanam di dem boppam. xam kattan tey dem ak gaar ko mu téye xetam di dem. tële gaar xetam. gën a tële jël otoom. gën a tële jële ci otoom. loolu yëpp. loolu lépp di kiriw. mu ci taxaw julli yi juróom. moom mi ngi taxaw temm ci julli yi juróom. mu ne mu wóor ko ne bon. mu ne nag mu dal koy wóor kon ne. saxtam ñaareel boobu it ay am toppam dugg na ci. saxtam ñaareel boobu yi day toppam lépp dugg na ci. wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun ne lañ leen wërsëgal dañ ciy dundale. ak ñi nga xam ne lañ leen wërsëgal dañ ciy dundale. mu gis ne. mu gis moom bàyyi ne. mboolem am toppam. mboolem am toppam ba tey. lépp lu leen yàlla wërsëgal. lépp lu leen yàlla wërsëgal. ñu ngi koy dundale ci yàlla ci wàll gu ne. ñu ngi koy dundale ci yàlla ci mboolem wàll gu nekk. ci miskin yi. ci miskin yi. ci surafaaw yi. ci surafaaw yi. ci pay bi fii. ci pay bi fii. ci fu nekk ci àddina bi. ci fu nekk nag ci àddina bi. mu ne xolam dali. mbay mu ne nag su ma xol dal di dali. ci ma xam ne. ci moom mu ne mu xam ne. mu wóor ko it ne. mu wóor ko pil nit ne. gannaaw muttaqiina mooy ñi amee melo yi. gannaaw ko ñu ragal yàlla mooy ñi amee melo yi. te melo yi gis naa ko ci sama saaba yi. te melo yi de gis na ko ci saabaan yi mooy wax de. kon nag wóor na ko ne moom ak i saabaam yëpp dañuy texe ci àddina ak yàlla. mu ne nag ci la dal di xamee ne moom ak i saabaam yëpp dañuy texe ci àddina bii ak ci àll ci àllaaxira te warlu gi ñu ci warlu. te warlu gi ñu bàyyi warlu kat. saa yu nekk ñu di ko ji. saa yu nekk day ñu di ko ji. waxtu wu ne. waxtu wu nekk it. lu jafe-jafe am am. lu jafe am am. waxtu wu ne. waxtu wu nekk. yolombal ga ca am toppam bi am. yolombal ga ca yàlla defal am toppam ci waxtu lañ ko jigee. néew na ñu gis ko ci njëriñ. néew na ñu gis ko moos ci lu am toppam. loolu nag dañ ko wax ngir sant yàlla. loolu nag daf koo wax. ngir sant yàlla ci xéwal ji mu gis. ndax yàlla nee na. ndax yàlla kat moo ne. xéwali sa borom dee ko waxtaanee. xéwali sa borom dee ko waxtaanee. kon wax ko dara ñaawul. kon kay wax ko moom dara ñaawul ci. loolu yëpp ci bunte sant yàlla. loolu lépp day ci bunte sant yàlla tënk la ko gërëm. ak ndokkeel leen. ak ndokkeel leen it nag. wan leen it ci li ngeen ne. wan leen lenn ci li ngeen ne. ne fekk ñu ngi ci. ne fekk ñu ngi ci lii ci damaan boo xam ne. ñëw ci kóllëre boo xam ne. bàyyi ñu ko jox. bàyyi ci boppam mooy ki ñu ko jox. jëlee ko ci yonent bi sallallahu jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu jógee ci yàlla. ko jógee ca yàlla. di ci. kon nag sant yàlla waaw. nañ fexe nag kóllëre googu. nañ fexe kóllëre googu ñun ñu ko ngëpp. ñu sax ci bu baax. ñu sax ci bàq te buñ ko lëkkee lenn buñ ci jóg. ndax yàlla day. ndax yàlla moom. waxal na boppam ne. waxal na boppam ne. moom du soppi mukk. moom day du soppi mukk aw nit. lu nekk ci aw nit. lu nekk ci aw nit. seen nit ña soppeeku. seen nit ña soppeeku wuñ ca lañ nekkoon. gannaaw nit ñi soppeeku wuñu. gannaaw nit ñi ñoom soppeeku wuñu. yàlla du soppeeku. wóor na ko ne yàlla moom ci boppam du soppeeku. te yéen soppeeku baay yii. te ñun yii. yéen a ngi ci kóllëre googu. ñoo ngi ci kóllëre googu. alhamdulilah. te a ngi ciy def seen mboolem man-man ba mu jeex. ñu ngi ciy def mboolem suñuy man-man ba mu jeex. loolu loolu nag. moom rek la doomu aadama man. moom dong la doomu aadama man kat. li ci def nag dañ koy bàyyi yàlla. li ci des nag yàlla dong la koy bàyyi. teew gii ngeen teew fii nag ci barab bii. teew gii ngeen teew ci barab bii nag. ci jamono yu jafe yi. ci jamono bu jafe bii. ci bët bii. ci bés bii. ñu ngi yaakaar ci yàlla ne. ñu ngi yaakaar ci yàlla ne. danañu jàngal lépp lu faatoon ci gannaaw. danañu jàngal lépp lu faat ci gannaaw. ci xol yi. ci xol yi. ci jëmm yi. ci jëmm yi. ci xalal yi. ci xalal yi. ci lépp loo xam ne lii rëkk na. ci lépp loo xam ne lii rëkk rëkk nga jëf. yàlla danañu ko ci jaral. yàlla danañu ko ci jaral. ndax ñëw gi ñu ñëw fii ci barab bi. ndax ñëw gi ñu ñëw ci barab bii. dañ ko jumoo rek ci li ñu yàlla digal ci yonente bi sallallahu alayhi. dañ ko jumoo ci li ñu yàlla digal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. yàlla daf ñu wax ci alquran. yàlla daf ñu wax ci alquran ne. nit ñi bu fekkoon ne bañ tooñee seen bopp. nit ñi. bu fekkoon ne bañ tooñee seen borom. seen bopp seen bopp. ndax yàlla kenn mënu koo tooñ. ndax yàlla kenn mënu koo tooñ. tooñ yi moom lu mu bari bëri. tooñ yi moom lu mu bëri bëri kat. suñ bopp la ñuy. suñ bopp dong ci la xel. waaye nag buñ tooñee suñ bopp. waaye nag mu ne buñ tooñee suñ bopp. mu ne bu fekkoon ne buñ tooñee suñ bopp ñëwal yonent bi. mu ne bu fekkoon ne buñ tooñee suñ bopp ñëwal yonent bi. balu yàlla yonent bi balul ñu. balu yàlla. yonent bi ñu yàlla. danañ fekk yàlla muy tuubalaakoon ak nit ñi. danañ fekk yàlla muy tuubalaakoon ak nit ñi. di aji yërëm ñeexal leen. di aji yërëm ñeexal leen itam. te itam. te it yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam. yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam. dafa am bunt. dafa am ay bunt. buntam ci ñun nag. buntam ci ñun nag. mooy bàyyi mooy bàyyi ñii. kon bu ñu yëgee ne tooñ nañ suñu kon bu ñu ñun ne tooñ nañ suñu ñu daje fii. ñu daje ci fii fi moom. ngir balu. ngir balu ko. balu yàlla. balu yàlla. te danañ jottaliku ci moom itam ci balu googa. danañ jottaliku ci moom ca balu googa. wóolu it ne yàlla danañu baal. wóolu it ne yàlla danañu baal nit moom. danañu yërëm it. danañu yërëm it. ñu ngi koy yaakaar. ñu ngi koy yaakaar. yàlla man nañu koo defal yàlla nañu ko defal. yàlla mën nañu koo defal. yàlla nañu ko ci defal yaa rabbi. gannaaw loolu. gannaaw ñaan yi fi sëriñ bi ñaan yëpp nag. ñaan yi fi sëriñ Aliou ñaan yëpp. wóolu nañ ko ci suñu xol. wóolu nañ ko ñun day suñu xol. ñu ngi wax amiin. ñu ngi wax amiin it ànd ak moom. ci li ci aju ci réew. ci mboolem li aju ci réew mi. li ci aju ci ñun. li aju ci ñun. li aju ci jëmm yi. li aju ci jëmm yi. li aju ci njaboot ak bàyyi. li aju ci njaboot ak bàyyi ji. li aju ci taalibe yi. li aju ci taalibe yëpp. ñaan gi dal na xol. ñaan gi dal na xel. ñu ñu ngi koy wóolu te di ci sukkandiku. ñu ngi koy wóolu. dafa ci njort te di ci sukkandiku. yàlla na yàlla fekk ñu ci suñ njort la. yàlla na yàlla fekk te suñ njort loolu dëgg ko yaa rabbi. ñu ngi gërëm itam. ñu ngi gërëm it. ñu ngi seqat réew mi. ñu ngi seqat réew mi. te ñu ànd ak ñun di góorgóorlu ci suñ wàll lañ man. tey ànd ak ñun di góorgóorlu ci suñu wàll lañ man. waxtu wi wu jafe la. waxtu wi. bu jafe maam. ndax waxtu wu mu ci baadoola yi. ndax waxtu wu jafee ca baadoola ya kat. jafe ci ñu leen di àtte. fokk mu jafe te ña leen di àtte ba nekk ci la ñuy sukkandiku ba àtte leen ci baadoola yi lay jógee. ndax lépp lu ñuy sukkandikoo ba di leen àtte ci baadoola yi lay baree ko. kon nag bu jafee ci ñun rek jafe ci ñoom. kon tey buy jafe ci ñun di jafe ci gannaaw yàlla xiir na leen ci ñuy jéem a góorgóorlu. gannaaw yàlla xiir na leen ci ñuy jéem a góorgóorlu. ngir jafe-jafe boobu ñu bañ koo yëg ngeen bañ koo yëg. ngir jafe-jafe boobu ñu bañ koo yëg. ñoom ci seen bopp ñu bañ koo yëg. ñoom ci seen bopp ñu bañ koo yëg ñu nit ñu bañ koo yëg. ñu ngi ñaan loola yàlla na leen ci yàlla. ñu ngi ñaan loola ci seen pexe yooya yàlla na leen ci yàlla dimbale ko yàlla jàppalee ko. waaye lépp nag. waaye lépp day. sukkandiku ci yàlla rek. sukkandiku ci yàlla muy dëgg. moom rek a xóor. moom tënk day mu xóor. ndax ndax wolof danay wax waxtu wu meree olof waxtu wu meree danay wax ne koo yaakaar yàlla la yaakaar koo yaakaar yàlla dong la yaakaar kon nag suñu yaakaar kon kay ñun suñu yaakaar nañ ko yëkk ci nañ ko yëkk ci yàlla moomu le ba la ñu àgg boobu tey dimbalante tey dimbalante ci lépp lu baax ak ragal yàlla ci lépp lu baax ak ragal yàlla buñ ko defee yàlla dinañu dimbale buñ ko defee day yàlla ci boppam dana ñu dimbale. yal na yàlla seet jëm ci ñun bëtëb ngërëm ak bëtëb yërmande. yal na yàlla seet jëm ci ñun bëtëb ngërëm ak bëtëb yërmande yaa rabbi. yal nañu yàlla waxtoo bëtam ba nga xam ne du nelaw. yal nañu yàlla waxtoo bëtam ba nga xam ne du nelaw mukk ci àddina. làq ñu ca ruqam ba nga xam ne kenn mënu faa àgg ak yàq. làq ñu ca ruqam ba nga xam ne genn yàq mënu faa àgg. yërëm ñu ci kattanam li nga xam ne am na ko ci ñun ba lu ko neexoon mu soppaliku ci ñun. yërëm ñu ci kattanam li nga xam ne am na ko ci ñun. te lu ko neex mu soppaliku ci ñun. yàlla moomu mooy suñu kóllëre mooy suñu yaakaar. yàlla moomu day moom tëngal yi. yu ñu jox. yàlla moomu day bëri na xéewal yu ñu jox. defantuñu ko. defantuñu ko. bëri na it natt yu ñu teg. bëri na natt yu ñu teg tey. munuñu ko. munuñu ko. waaye. ba mu ñu xéewalee sant ñu ko. waaye ba mu ñu xéewalee sant ñu. terewut mu ngi continué di ñu. terewut day jàppee wu ñu ko moom ma nga continué di ñu dara. ba mu ñu nattoo mu ngi. ba mu ñu nattoo it mu ngi dal lenn. wëccut ñu. wëccut ñu terewut ma ngi xéewal. kon nag yàlla moom rek. kon kay yàlla moomu dong. mooy ci mata sukkandiku. mooy ci mata sukkandiku moo mën a wéeru. yal na suñu wéeruwaay ci moom dëgër. yal na suñu wéeruwaay ci moom dëgër yaram. yàlla xol yi wéeru ci moom wéeru gu dëggu yàlla xol yi wéeru ci moom wéeru gu dëggu te nekk ñeexal ko mu nekkal ñu te nekk ñeexal ko te nekkal ñu ya rabbi ndax ku ko nekkal rek mu nekkal ndax moom day ku ko nekkal mu nekkal la yàlla nekkal yàlla yàlla nekkal yàlla ya rabbi ci suñ zahir ak ci suñ baatin ci suñ zahir ak suñ baatin suñu zahir suñ zahir nag yàlla nay dëppoo suñu baatin yàlla nay dëppoo suñ baatin ya rabbi lépp lu ñuy wane lépp lu ñuy wane ñuy gis ci lu rafet ci lu rafet yàlla fekk mu dëppoo suñu baat yi yàlla fekk mu dëppoo li nekk ci suñu baat yi yaa rabbi yàlla mënal nañu loolu yàlla nañu ko defal yàlla mënal nañu loolu yàlla nañu ko defal yaa rabbi ñu ngi delloo ci di leen gërëm ñu ngi delloo ci di leen gërëmaat di leen ñaanal di leen ñaanal yàlla it lépp luñ fi ñaan lépp luñ fi ñaan fii yàlla na ko yàlla nangu yàlla na ko yàlla nangu te baaxam bi yaa rabbi li sëriñ bi wax ne li sëriñ bi wax ne wóor na ko ne bàyyi gërëm na. wóor na ko ne bàyyi gërëm na. yóbbu jëlewul ci mukk lu ëpp loolu. jëlewul ci moom mukk lu ëpp lii. amuñu itam yóbbal ak ëllëg lu day noonu. amuñu yóbbal ak ëllëg kat bu toll ni defal bàyyi ba mu gërëm. bàyyi nag ci li muy gërëmee lan la. bàyyi nag li muy gërëmee moom lan la. wax na leen ko. wax na leen ko yéen ñëpp ngeen di ko déglu. Eh, li ngeen. du li ngeen bu dajale di ko. du leen dajale di ko indi. waaye yëngatu gi ngeen di. waaye yëngatu gi yëngu ñun ñëpp jékki-jékki ci yàlla. te dara taxul ñoo jóg lu may yàlla. te dara taxul ngeen jóg lu may yàlla tënkee. loolu rek ko tax a jóg. bàyyi day moom loolu rek dafay tax a te gis na ko. te it ku ko def rek mu a koy jóg. loolu sant yàlla la. la ku ci boole. yal na ko yàlla saxal te dolli ko. yal na ko yàlla saxal. te di ko dolli fekk ñu mën a dolli yaara bi. yàlla ñu yàlla dolli ci zahir ak ci baatin yàlla ñu yàlla dolli ci zahir dolli ci baatin yaa rabbi ay tëbbam yàlla bu mu dox ci ñun yàlla bu tëbb yàlla dox ci ñun mukk ci àddina ci suñu zahir ak ci suñu ci mbooleem suñu zahir ak suñu baatin yaa rabbi yàlla na yàlla xéwénal xol yi yàlla na yàlla xéwénal xol yi yaa rabbi bu xol yi xéwénee lépp xéwén bu xol yi xéwénee lépp dana xéwén yàlla yàlla xéwénal yàlla yàlla xéwénal xol yi yaa rabbi yàlla moo amee ak xéwénam yàlla ko xéwénal yàlla moom doy na am ak xéwénal moo mën a xéwénal yal na ko déwénal. yal na yàlla nangu ñaan. yal na yàlla nangu ñaan di yaa rabbi. barke yonent bi sallallahu barke a bi sallallahu alayhi wa sallam. barke Cheikh Ahmad Tidiane. barke Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu. ci barke Baye. yal na yàlla nangu. yal na yàlla nangu ñaan di yaa rabbi. su ko nangoo. su ko nangoo. yal na ko ful sa kembaar. yal na ko ful sa kembaar yaa rabbi. bi jaay sayyidil wujuud. bi jaay sayyidil wujuud. واعلم الشهود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم loolu moo doon li ma waroon li ma bëggoon a teg rek ci waxtu sëriñ bi. lii mooy li mu bëggoon a teg ci waxtu sëriñ Aliou ji rek. di leen ndokkeel. di leen ndokkeel. di leen ñaanal. di leen ñaanal yàlla it fu mu mën a toll. di leen wax it ne. di ñu wax it ne. yéen ñëpp da ngeen am gan. ñun ñëpp dañ danañ xam gan. te tey dañuy ca Baye ba Niassène bu Baye. Abdou Diouf mii yàlla def tey muy président Sénégal. dana gane ci Taïba. dana gane ci seen Taïba ndax seen Taïba la yéen ñëpp. buy gane ci Taïba nag. buy gane ci Taïba googu nag. du ma Samba du ma Demba. du ma Samba kat du ma Demba ji. Baye rek kat. Baye du nga tax muy gane ci Taïba xam ngeen ne. dëkk yi ko wër bëri na. dëkk yi ko wër. bari nañ xam ngeen ne. dëkk ya ko gën a rëy bari na. dëkk ya ko sax a bit bari nañ lool. waaye bu ràññeelee tay ba. waaye bu ràññeelee tay ba ci dogal googu nag. danañ xam ne bàyyi ak njabootam la. danañ xam ne bàyyi doon ko bëri bu ànd ak njabootam ñoom doon nga la soxlaan. kon nag képp ku koy juddoo. kon nag képp ku koy juddoo bàyyi noonu nga xam ne moo tax jug. bëgg nañ bu keroogee. nga bokk ca ña fay teew. ko teral ko. ndax loolu rek la ñu am. ndax loolu dong la ñu am a xamal loolu lañ mën a wutoo bàyyi ci moom. bu ñëwee foofa. bu ñëwee foofa it. gis njaboot ak bàyyi. gis njaboot ak bàyyi ci. dellu. dellu mu président. dana xam mu leen di dana xam bu àggee nu mu leen a jàppee ak ak lu war ci ñëwam gi muy ñëw ñëwam gii muy ñëw la ci li ma leen waxee woon te gàmm ko boobu yëgu ma woon ñëw. nam leen waxee woon te gàmm ko boobu yëgu ñëw kii mu bidal. ñu naa leen lu mu jiital ne nga leen am na lu mu jiital fii ci ay garaaga. yoo xam ne yéen la ko defal. yoo xam ne yéen dong a ko defal ko. muy loo xam ne mi ngi ci liggéey bi ma ji nga xam ne ku nekk ci yéen jëndi lii. ndax bu ne. ndax bu waxee ne. bu waxee ne lépp lu jëm ci. jumaa ji. lépp lu jëm si ci jumaa ji. ak lu mu mën a doon ci matériel. ak a day lu mu mën a doon ci matériel. Eh, taxe dootu ci am. benn taxe duñ ko ci teg. benn douane duñ ko ci teg. benn douane yi kenn du ko ci teg. nguur gi soxlawul ci dara. nguur gi soxlawul ci dara. te loolu ku xam. te loolu day ku xam li mu mën a jël. ku xam taxe ak lan muy ja. ku xam a ci li ñuy yóbbu bi baax. da ngeen xam ne dimbale nañu. da ngeen xam kon ne ci loolu day. dimbale leen ci li ngeen kon teranga moom teranga rek koy fay teranga nag gor teranga teranga dama koy kon nag bu boobaa kon nag bu garam bi moom li nga xam garam ak nit nañ war a mel njëkk ci weeri mars lay te su ma gën it nag. ñu na tax ba loolu mooy li nga mooy liggéey bi ñu def na la mu wax ñu ko ñun ñëpp ku ne tam ci waru dañu war koo rafetal ngir ko tuddee. yàlla nañu ci yàlla dimbale yàlla ci yàlla dimbale rabbi. may ñu ci ndam. may ñu ci ndam it. defal ñu ci jàmm. te defal ñu ci jàmm. defal ñu ci sutura. defal ñu ci sutura yaa rabbi. gan ñeeg ñu koy teeru ñu. gan ñeeg mboolem ñu koy teeru ñu koy yëngatu ñëpp. ñëw ci jàmm dellu ci. ci ci waxtu ci ci waxtu ñu koy ñu koy di ko mu ci barke borom barab ci barke borom barab bi ak ci yàlla ñu ko yàlla defal yàlla nañu ko yàlla defal ci barke yàlla ji allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ne képp ku gëm yàlla ak ak yonentam na teral ganam ba yonent bi wax loolu nag waxut gàngan na mel waaw ganam rek lay wax ganam dong la wax sax soo amee gan rek ak mu gàngamaa mel waaye ku yàlla dénk dal Sénégal waaye ku yàlla dénk lu toll ni Sénégal gii ngeen xam. wóor na yàlla ku mu ku mu wàcc ci yow. daf lay wóor ne kooku ku mu wàcc ci yow di sa gan. xam nga gan gu mag gan gu mat a teral gu énoog teraanga. te loolu moom sëriñ ay dañ leen kenn mënu ko xoolal te bokk ci bàyyi. lu baax lu baax nag lenn du fayam. lu mooy lu baax ni moom. rawatina nag kilifa gu toll ni moom. njëkkee la baax gu toll ni jëm def. njëkkee la baax gu toll ni jëm ñu defal. jëntee ci kay waxtu wu jëntee ci ñun war nañu. lépp lu ñu lu ñu mën ci teral ak teraanga. ñu def ko. ñu def ko rek luñ mënut it war nañ koo jéem ndax li ñuy defal la te képp ku ko def ci ñun kat sa bopp dong nga koy am. nit nag war naa bëgg boppam bu mu nitam dee nit. nañ jégg nañ jëpp. waaw waxoon na maa koy yàlla sax ca dàkk lu ñu wax nag ci lamiñu baayam ak xalaatam it ak ndigalam lu ma tëkk wàllu ziara bi moom seen xol sedd na ci guy la fekk suñ kër ya lu ñu xëy woon it ñu ngi siyaara si bàyyi ngir yàlla adam yonentam ñu ngi siyaara ay doomam برهام باء وراء ألف ثم هاء ميم مجل فيض تيجان جخن نام